2 tv sa xol di dag di bu ndax bu ndax yi nga na man naa may délicat ndax tay da nga xewi mayuma la délicat loolu la metti ma ngay jël sama vidéo naan da ngay jël sama vidéo dama wul sama bopp siir police may ngay waxal de xale boo xamante ni dafa téye bopam xaba la ban ñu ñu labaat ko nak xolal ci digg koñ bi lañ fay la ban nak kenn du gis ay cëram te bu la neexee nak nga publier maa la wax lool dama wul sama bopp dof bu sadik ngay waxal de jëlal maa la may bopp mal lula mete tegul ma ko ndax da ya, nga dama dem ca 2STV sa xol di dag di bundax bundax yi nga ne ma naa la may délicat ndax temps yi da ngaa xewi mayu ma la délicat loolu la ma tax ngay jël sama vidéo naan da ngay jël sama vidéo dama wóolu sama bopp siir police mbay ngay waxal de xale boo xamante dafa téye boppam xaar ba laaban ñu ñu labaat ko nag xolal ci diggu koñ bi lañ koy laabaan nag kenn du gis ay cëram te bu la nga publier maa la wax loolu dama wóolu sama bopp dof sadik ngay waxal de jëlal kaas ndax temps yi da ngaa xewi may ma la di kaas loolu la métti ma tax ngay jël samay vidéo naan da ngay jël samay vidéo damaa wóolu sama bopp Sidy Pawlish Mbaye ngay waxal de. xale boo xamante ne dafa téye boppam xaa ba laaban ñu ñu labaat ko nag xolal ci diggu koñ bi lañ koy laabaan nag kenn du gis ay jëram te bu la neexee nag nga publier maa la wax loolu damaa wóolu sama bopp dof bu sadik ngay waxal de jëlal maa la may bopp olo maa lu la metti tegul ma la ko ndax da nga ne naan damaa dem ca 2STV sa xool di dagg di bu ndax bu ndax yi nga ne ma naa la may délicate ndax temps yi dangaa xew yi mayu ma la délicate loolu la métti moo tax ngay jël samay vidéo naan da ngay jël samay sama bopp Sidy Pawlish Mbaye ngay waxal de xale boo xamante ni dafa téye boppam xaa ba laaban ñu ñu labaat ko nag xolal ci diggu koñ bi lañ koy laabaan nag kenn du gis ay cëram te bu la neexee